soxna si yow da am jëkkër am far. Mhm. ñu toog nii ñu fa yéene cee waxtaan. Mhm. lan moo tax nga am far yow. waaw man sëy naa sept hmm. waaye sama jëkkër ba ma ba tey may jaamu daal. Hmm. comprendre lu ma. du hmm. ma soutenir ma ne bànneex du ko bokk ak man. su ma amee du ko bokk ak man. amul daal benn bànneex daal boo xam ne. am naa ko ci sama sëy. man nag assistante laa. fi may liggéeyee def naa fa cinq ans. ci may liggéeyee nag sama patron. Uh-huh. liggéey def naa fa cinq ans mais trois ans yi ma fa liggéey yëpp daf ma am compréhension ci man. Uh-huh. comprendre ma. Uh-huh. su ma xëyee sax nekkuma sax. mbooma biroom lan la lan la ba jàmm da nga am problème sa jëkkër soulagé ma. problème bu ma mës a am rek. taxaw na ci. Uh-huh. léegi comme pas xëy na kii ànd boobu. bu uh-huh. yàgg boobu ñuy nekk di gisante chaque jour ba comprendre ma di ma defal di ma di ma woon loo xam ne sama jëkkër mosuma ko wan. Uh-huh. benn jour tamit man ma dugg bureau sama sama xol neexul. léegi nag moom mu fóon ma. da ngeen doon waxtaan. da ngeen doon waxtaan sama xol naqari mu may soulagé noonu nag mu fóon ma. depuis loolu nag man ak moom ñu ñu ànd. ci kaw ci kaw sama sëy. ba ñu commencé ànd léegi nag man euh, def na deux ans. deux ans yi nii ñuy ànd. Mhm. waaw mais mais qu'est-ce léegi moom moom moom am na jabar. waaw moom am na jabar mais selon moom li ma li ma expliqué. Mhm. xëy man moom dañoo dañoo kaa rek parce que moom jabaram toogul euh, mhm. jabaram amul temps jabaram moom ci li wax ci li expliqué. këram daal lépp maa koy def.

mosu fa ñëw yónneen dafa indi ay boucan ñoom seen. Uh-huh. ok d' accord lan moo tax nga ni moom dafa soupçonné jabaram. waaw dafa soupçonné jabaram jabaram. Uh-huh. parce que nag xam nga góor ñoom seen uh-huh. jabaram pour moom daal jabaram yamul ci moom. waaw loolu la ma wax nag dëgg yàlla. dëgg la am. ma nag parce que xamuma relation ak moom. ok d' accord mais yow tey jii est ce que am njëkk am far bi est ce que yaa ngi ciy sóor Euh, sa sa sa diine yaa ngi ciy sóor sax njaboot ak yooyu am amoo doom. am naa benn doom. Mhm. waaw am naa benn doom bu góor. Mhm. maa ko ji sóor bu baax nag wax dëgg yàlla maa ngi ko ji sóor mu nekk mooy tas sama sëy. Mhm. même bu fekkee sama relation ak sama patron sëy bu ci am sax. ma tas sama sëy rek sama xel dul ma loo xam ne poids la. yaa ngi koy def waaye sa conscience du tranquille. foo toll boo tëddee guddi doo nelaw. yow daal ñàkk jàmm moo tax nga. ñàkk jàmm daal. moo tax ñàkk jàmm ak jëkkër joo xam ne du la comprendre man daal mën naa ne li ma ci dugal loolu daal wax dëgg yàlla ci la bokk parce que man xalaatuma woon parce que man nen boo amul man dama amoon jëkkër sax mosuma concevoir nit kuy am jëkkër di am far man mosuma ko nangu. Mhm. donc bu ma def nii daal xam naa ne daal bu ne tamit am nañ ci benn part de responsabilité. Mhm. waaw ci sama xalaat. ok yow fi mu nii da ngaa sa patron bi. waaw bëgg naa ko def dëgg yàlla. est-ce que moom bëgg na la carrément. waaw ci li ma nag waaw ci li ma woon man xam nga affaire moom. léegi moom nit moo yoon ñëpp lëndam. Uh-huh. waaye ci li daal. Uh-huh. am naa ci ñëpp rafet na bëgg naa. est que yaa ngi sëy ak sa jëkkër ba pare maanaam yéen a ngi seq lal bi ba léegi. waaw ñu ngi koy seq waaye li ñu koy seq bëriwul. Uh-huh. muy moog safar bi ku ëpp lu ëpp koy seq sa patron bi.

waaye sinon laa amul kenn ko ci waxtaanal pour mu conseiller la wala yow. dëgg la dëgg cee conseil waxtaan. su ma um waa société bi.